asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan seen Senclic TV ñu am mbégte ak kontaante pour dellusiwaat ak yéen li waral sunu mbegte ak sunu kontaante tey nag dafa am ku màgg ci ñun ku réyoon ci ñun muy Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al yàlla àtte nag moom mu dem jiitu ji mu mel ni ñu jëm ci li ñuy tuddee anniversaire bi nga xam ne ci la ñu jëm mooy le quinze yàlla àtte na nag ren moom dafa tombe sax ziar généralu Tiwaawan góor googu nag nga xam ne mooy koo xam ne dafa absent te nekk fi ndax sànq rek ñu ngi koy wax ci oto bi mooy mooy ki nga xam ne nekku fi waaye bés bu nekk mu ngi fi ndax ci li muy wax ba léegi nit ñi du ko dund lu xew rek ñu génne ay et ci ay waxam ne lii de Serigne Cheikh waxoon na ko jëmm jooju nag di tax ñu ne dañu am mbégte ci loolu mooy dafa am koo xam ne moo nekkoon ak moom muy kan mooy góor gi Alaaji Mafali Diop yàlla atte na moom mii mooy ki nga xam ne moo doon dawala Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al kon dana jaadu bu ñu yemee ci anniversaire ñu ne nañ ñëw ci moom laaj ko ndax ku nekk ak Serigne Cheikh ay at yi mu nekk ak moom ak Serigne Cheikh méthode am defe naa ne loolu danañ bu ñu toogee moom sëfër am moom duñu ko wax kan mooy Serigne Cheikh fan la juddoo duñu ko wax loolu moom daal dañ koy laaj moom lan la xam ci Serigne Cheikh ak naka la doon dundeek moom ci Serigne Cheikh ku ko xam-xam ni mu bëggoon loo xam ne lu nëbb la. nu mu la mënoon dund ak moom Serigne Cheikh ku ko xam xam ni mu respecté woon waxtu ku xam Serigne Cheikh xam ni mu nekkoon ku nekk nit ku discret ku xam Serigne Cheikh xam ne lépp lu mu doon def rek dana ko def ci façon bu yiw bu macha allahu kon kooku nag moo tax ñu ñëwoon fii tey fekk si ko fii ci këram euh, nga xam ne moom it góor gi Mafali Diop bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yor jumaa jàkka ji fii ci xaar yàlla euh, Bagdad bu ko defee moo tax ñu ñëw fi tey. ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun muy sunu caméraman bi muy euh, monsieur Kéba Sané bu ko defee moom la ñu àndaloon tey ñu ñëw rek laaj la góor gi euh, bu ñu la ko doon laaj daal présenté ñu naan lan nga xam ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum yéen mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi ak Sénégal gépp maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di balu ak ñëpp di ñaanal ñëpp di wax nag Ousmane Ndiaye mii nga xam ne fa tabaarakallaahu mook Babacar Kane doomu sëñ Ousmane Kane dina jaay ki Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo nekk ak moom comme ci ni ma ko waxee ci gàttal rek ni ma jegee woon Serigne Cheikh tabaarakallaahu e, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si nag yàgg naa moom lool waaye nag góor gu yiw la góor gu yiw la ku bëgg xam-xam la te itam yàlla mayoon na ko bépp téere bu muy gis muy jaay am na njëgam waaye nag du ko leb du ko àbb day xool turu téere ba bind mor sa kayit jox ma ni ma bu ëllëgee nga ñëw laaj lu muy fay nga jënd ko andil ma wax na ma ci làmmiñam itam ci dundam nee na bi fi sëñ Babacar si radiyallahu taala nekkee nee na booba xam-xam moo leen di wër wax na ma muy koo xam ne kii nag li ma xam ci moom bari na su ma ko doon wax fii ba déen du jeex ci ay baax-baax nag ak i jëf yi ma gis mu jëf ko nga xam ne boo tuddee nit ku fi nekkul dana la déet noppil bu ko tudd ndax maandu lépp lu muy def ci këru àdduna ci discrétal la koy def ci yiwte la koy def wax na ma ci làmmiñam ne ma xam nga moom nit ku tabe la tabe moom ak yiwte boo ko xasee wax ci nit rek daanaka tudd nga jikko yi nga xam ne bokk na ci jikko yonent bi dàmbale muy jikko yu rafet te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jikko la ko tëggee sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si nag ku yor jikko bu rafet la nit ku teey la nit ku dal la nit ku teey la nit ku dal la euh, li ma njëkk a fàtte tuuti rek mooy présenté wu télévision bi nga xam ne ci lay waxee muy muy Sen TV ak euh, seen kilip ci lay waxee wax jii may wax di nga xam ne lu ma xam ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si la ñi ànd ba fi baaba kër jógee lépp lu mu war a taxawee man mën naa seede na taxawe na ko fu mu war a dem ci conférence dem na fa wax fa la mu war a njaboot yi Kawlax Ndar senegal Ndakaaru gii Tëngéej Bargny Mbuur mbooleem gox yi Sénégal yëpp wër na ko gannaaw sëñ Babacar wax ak ñoom wax leen kan mooy Seydi Hadji Malick wax leen kan mooy sëñ Babacar moom mun na bu boppam nag waaw ci discrétal goo xam ne gii eh, ku ko xam rek yaakaar naa ne sax eh, njaboot boo xam ne bii amuloo sutura mënuloo ànd ak sëriñ Cheikh ndax jikko bu rafet ak jëf ju rafet ak tabe ak baax lu xale tuuti tuuti damaa wax ne gis ko jafe na waaye boo xasee ba ji sam nga koo yendal ci benn place ba ngoon du fiq mukk nela la bàyyi ma yow kay yaay am xelum wax a wax ba yegg ci ne ah, kii nag wax dëgg yàlla téye gi ma ko téye yàgg na nga bàyyi ko mu mu mu dem noppalu loolu di la ko def bëgg nag lu baax bëgg nag ay bokkam àndoon ak ñoom taxaw gannaaw sëñ Babacar kër gi lépp lu jëm ci kër gi mu taxaw ci di ko doxal ànd kook sëriñ abdu ànd kook sëriñ Mansour ànd ak baayam Alaaji Abdou Aziz Si ci lépp loo xam dafay rafetal kër gi ak luy indi jàmm fa tabaarakallaahu loolu def na ko bi ci topp moo di mboolem fu taalibe ne dama ne fii ba ndimb fii ba njëkk fii ba muratani fépp fu taalibe nekk rek gannaaw sëñ Babacar sëñ Cheikh taxaw na ba ñu dem fa conférence ci oto Alaaji Yuusu Jóob la daan dugg bu ñuy dem gàmm yi luga moo ko daan gàmmu ndar moo ko daan gammu gànket alaaji ma demba caam euh, góor gi ma demba caam moo leen jur mu xaddamu sidi xaaji maay la kere bu mu génnee àdduna fii ci kolobaan maak sëriñ Cheikh ñoo ànd ñoo ko maa ko jël ci sama oto ñu ànd yóbbu ko gànket mu toppatoo ko ñu denc ko suul ko mu wax fa war a wax def fa war a wax li ma xam ci dundam nag moo di fépp fu njaboot masa ne mu defa dem li ma ko mën a seede mooy bala faa dem dana fa jiital loxoom yóbbu fa lu am solo boo waxee mu ne ah waaye ku am gan da nga togg añ danga togg reer da nga togg njoganal da nga joxe café su ko defee mu génne lu am solo yëkkati tekki sa loxo boo dee njabootam booy ngénte lépp moo ko yenu boo ko toppee sax dangay ngay yaafus ndax mbaax rek baax rek mëtal kóllëre nag du fàtte kenn dañ daan ànd ci sama oto bu ñu toppee mbedd ndakaaro yi di dox léeg mu seen na ma e diw la kii kii day ci kii di gëj naa ko kii daal daara ji nangam ak nangam ak nangam am mémoire nangam ak nangam la nekke woon nangam nangam lañ daan àdde ku wax ma ci làmmiñam itam ne ma man nag munuma maye junni munuma maye ñaari junni bépp njaboot bu ñu wax ma soxla dama lay fexeel ba amal la loo xam ne boo ko jotee sa sa soxla dana faju loolu te mën naa ko koo seede tabaski bu jotaa day jël lu mat fukki million ñu ànd fii ci bopp maak moom ak mbay Guèye ak mustafa ñan yàlla ko yàlla yërëm ñi dem mu jël xaalis boobu yëpp jëndee ko ay xar ak xar yi taalibe yi joxe groupe yi ñëw ci kër gi dañuy séddale ay xar ba deux heures du matin ba trois heures du matin muy joxe ay xar di joxe di joxe di joxe am na julli goo xam ne gii yàlla xam na ne kile day yónnee lu mat téeméeri ambulong teg ci lal bi doom ji bés mu laaj ko ne waa papa yi ambulong yi loo ko def mu ne ko ay ah, itam lii ma fi bàyyi lii ma fi bàyyi joxe rek joxe rek lu mu am ci kër du ko jox nit ñi waaw ànd naa ak moom man koo seede aji maam Yacine Diagne mooy goro Pape Malick Sy moo jur maam Baas ñu dem ci point 1 ci pharmacie bi am na kër gu ne ci àngal bi aji maam Yacine Diagne moo ko moom kere ba mu ko yëkkatee këy yu ne da koy may Serigne Cheikh Serigne Cheikh daf ne ko ëpp naa def njaboot gee tax loolu boo ko desee doo gis ci ah, man de gisuma ko fenn ci moom laa mës gisee ku ñuy génne këyitu kër di la ko may nga ne ëpp naa def ma mën ko koo seede fii ma dëkk fii ci xaar yàlla sama doom yi kum ci tuddut Pape Malick ko tudd ñëw na fii sama kër gi avant ma koy sanc ñëw na taxaw ci ñeenti koñ yii ñaanal ma ci bii koñ ñaanal ma ci bële koñ ñaanal ma jëm ñaanal ma ci koñ man nag sama côté yàlla defal na ma sutura bu baax a baax ma sante ko yàlla nag du man du sama nguura waaye nag yàlla ma ko may moom mi nga xam ne mooy xàllal nit ñi yoon ànd naa ak moom lu yàgg te musuma koo yàqal mukk nag wax walla ma wax ko ci mbokkam lu ko tee naan kafeem du ma ko joxasee kenn ku wax ma ne ko ay sëriñ bi lu baax ko bokk kër gi yéen ñëpp ko bokk si laaj may mooy seen maam nangam ak nangam def leen nangam def leen nangam ma ne ko ñaari xew-xew ngeen ma ne ko si Arsenal gàmmu Tiwaawan bu ngeen fa daje yéen ñëpp famille bi kenn ku ne fóon sa morom ngeen waxante la rafet bu ngeen fa jógee ngeen dem seen kër kenn ku ne ñëla gëm topp la loolu seede wax naa ko ko bés tey yàlla rek a tax ma di ko wax parce que waxuma ko pour tiitaru waxuma ko pour wanewu waaye nag boo nekkee kilifa da ngay am discréteur da ngay am discréteur am na loo xam ne lii euh, sutura moo koy doxal boo ko mësee tudd ci kilifa diine mu ne ëpp naa def waaw ba ci yoonam wii mu dem tuubaa ba muy dem xale yi yàlla xam na ne man fu mu jëm ci àdduna yàlla def na man la wóolu ma kontir ko keroog lañ maa wër wër gisuñu ma xaw ma ci lu ma nekkoon sama aw su ànd ca yoon waaye ba mu demee sëñ Abdoulaat teraanga bu ne defal na ko ko moom Serigne Cheikh sëñ Abdoulaat defal na ko teraanga bu ne. bi mu ñëwee fii ci kër Ndiouga Kébé gi fii ci route de Wakam sëriñ Cheikh ñaari wëlisi bassin ak pa ay wëlisu la ko yóbbul jox ko sëñ Abdoulaye sëfoor bi nga xam ne moom la ko sëñ Abdoulaye jox mu indil ko mu indi moom oto bi mu ko mayoon ba mu ñëwee defe naa ni su ma juumul lu néew néew sëriñ bi jox na ko lu ëpp deux millions jox ko mu ñibbi Touba. yu baax yooyu nag la def ci réew mi di nit koo xam ne kii xam naa ko de ndax yàgg na ci Lamine ca sengoor maa ko daan yóbbu kër Senghor maa ko daan yóbbu ci Lamine Gueye yóbbu naa ko ci Lamine Gueye yóbbu naa ko ci Abdou Diouf mi fumu mu mës a jëm ci wàllu politique wala lu muy doxi pour réew mi ba ci événement yi mujj am te boobu Djibo Ka moo nekk ministre de an astafurlah euh, defe naa boobu moo nekk ministère de l'intérieur événement bu garaaw boobu nga xam ne 1958 dañu ne woon gàmmu du am màggal du am dara du am maa ko jëlee Tivaouane andi ko maa ngi gaare ci ministère de l'intérieur booba Cissé Dia moo nekk ministre de l'intérieur ñi dem. mu dem gisee si Cissé ne ko waxal sengoor ne ko réew mu mënuñoo ñàkk a am Senghor ne ko bu Cheikh joxe garanti ma joxe ñëpp ñu ma jox ma joxe ñëpp ñu dem gàmmu ji ñu d'accord moog Cissé Dia ak sengoor ñi daal di génne ci télé bi ne bàyyi nañ fu waaye bëgg a gàmmu ci Sénégal da nga dem gàmmu ji ñëpp gammu ji ñibbi ci jàmm gàmmu jàmm am senegal am jàmm loolu li mu ci dox. ma xam ko munuma ko wax ba ci ñoom di Diagne ak Soussef mbay ak Ibrahima Sarr ak Wal Jooja Njaay ñooñu nga xam ni ñëpp gannaaw yàlla lu ne ci këru ànd dox na ko ci seen diggante ak Senghor ci lu baax wax ci lu baax waaw ba ci Fofana Abdoulaye loolu yëpp fekke naa ko